mbindaan doo fóot say we da nga ko yar ba mu gudd café gi machine bee koy wal jigéen bi ci sox amul togge matt gaas waaw boo boolee loolu na nong na te bala laa sa borom kër a jot neexal ba sonn booy amee ku baax ah sëñ Gana xanaa nga ñemee koo wax ñenn ñi sax duñu fóotal seen jëkkër te xanaa xamu booy fóotal sa borom kër dox ko ndox ko waddi ci suuf dañ koy tabaxal kër ca biir àjjana lan moo ne ci merloo sa borom kër ci danse sëñ Gana Messere Maxtar yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na képp ku merluwoo sa borom kër maanaam ngeen di wax sa kàddu gën a jëm kaw ba sa borom kër mer juróom-ñaar fukki at la màbb sa na képp ku merluwoo sa borom kër maanaam a jëm kaw ba sa borom kër mer juróom-ñaar fukki at la doon ko ne da ngay wóor bëccëg yi. sëriñ Gana Messere Makhtar nettali ñu soxna si nga xam ni léegoo léeg di nga ñu koy faral di nettalil ci ay jataay. dafa am seen soxna soo xam ne dañoo mas a ñëw na ko sa doom ja na ca dex ga muñal sëñ Tuubaa ko nettali boo demee ci àll ju ba soxna si daw ñu taxaw ci buntu dex gi daan na doom ji yaa Muhammad doom ji wuyu ko mu ne ko kat bi mu génnee ñu ne ko sa doom ji lu tax mu lap ci dex gi ñu ne la faatu na nga ne faatu soxna si ni leen musuma mooy yàlla musuma mooy sama borom kër te jigéen ñi léegi fonkatun dara lu mooy ku leen di gërëm ku leen di sant aha ñuy liggéey jàpp ne xej ji li la koy may mooy sangoog gasi bitil di suul ak mu ni jàpp ne xej ji li la koy may mooy sangoog gasi bitil di suul ak jubóowu sa wujj jigéen joo gis wujjëm mooy ab goroom ndax ki jur kër gi borom kër gi moo mat a damoo gis nga borom kër gi sama jëkkër bu sa jëkkër tabaxoon quatre-vingt-neuf building yi kan mooy sa wujj nag mooy goro bi nga xam ne moo doon liggéey ba fi dara nekk di boole xiifa ko sonn ba jur tey borom kër gi kon tiitaroo maa jur borom kër gi moo gën borom kër gi mooy sama jëkkër wallaay sëriñ Gana Messere Makhtar lenn ci jigéenu Sénégal yi seenug jongeeg seenug sëyeg seenug moom seen borom kër yépp ci gàllaaj ak gasi reen naka suul lañ ko amee ah! la ngay dem di ko weexale ci ngir di liggéeyee ko noobe am na nopp bu gën a gaaw sëriñ Gana Messere Maxtaar ba nopp moo gën a gaaw ci sa jëkkër gis nga gan nopp moo gën a gaaw ci jigéen noppil noppi naa toogal toog naa loo am jox ko lu mu la wax ko dégg koo ko def neex ko ku ne nga gas fa dara nekk jigéen ju takk takk takk ba mel ni mbarum lamb loolu dafa la fi sax ma ni ku ne nga gas dara nekk jigéen ju takk takk takk ba mel ni mbarum lamb loolu dafa la fi dëgg la sëñ Gana de am na ci jigéen ñoo xam ne de saa yi boo leen jegee waxuma la sax la ñu takk waaye saafara sañuy xeeñ da ngay yaakaar ni sax rakku mbër ma la dëkk fa la ca xaw ma lan euh, unité 6 la. ab tay baa sax boo ko solee wala nga sol gi mu ne fu mu fu mu yëral te loolu waralu nga ngir ak njabar. loolu loolu baaxut dafa dafa du maase daal. sérieux wul. béjjén bu ne nga takk ko. mu ni fas bu ne nga takk ko. reen mu ne nga takk ko. sa boroom kër ragal laa ragal ragal ragal ba. ragal nag ah sëñ gaar na kon góor moom dana ragal soxnaam. fi ne am na ñoo xam ne seen soxna dañ koo ragal ba li ma doon nettali benn waay boo xam ne am daaru jéy la dafa ragal soxna si ba bu bu bu masaa di eh, soxna si séddale cere ji bu ñeex mi jeexee sax ngi mu wutalaat ñeex ngir ragal soxna. ma ne. bu ñeex mi jeexee noonu lay lekkee cere kese ji. man de ragal naa gépp ragal. waaye dabaguma kii moom. benn bis nag benn xaritam ñëw seet si ko. waa ji moom faaliwu dara. ñeex mi jeex waa ji daal di jékki ci guddi gi nag noo booy indi ñeex mi. sëñ Gana Messere Maxtaar. gannaaw ba xarit bi laajee ñeex nag. borom kër bi dafa tiit ndax laaj ñeex. borom kër gi wax lan soxna si. dafa tiit ba jóg na ko eh na nga xàmmee baat yi de xàmmeel léegi kooku fu muy juree doom jun waggar ko ah xalaas sëriñ Gana Messere Makhtar kon jigéen jigéen day yaatal borom këram jigéen day nekk puso di ñaw ñaata nit ñoo tàggoog seen i doom ñaata nit tàggoog seen i mag ñaata nit tàggoog seen i te jigéen dong ko waral adduna jërul loolu sëñ Gana Messere Maxtaar waxaatal ñaata nit ñoo tàggoog seen i doom ñaata nit tàggoog seen i mag ñaata nit tàggoog seen i rak te jigéen dong ko waral adduna jërul loolu walaay sëriñ Gana Messere Maxtaar lenn ci jigéen ñi bu ñu sëy see dañ lay njëkk a say mbokk ngir man laa jekku man manee la ci zaahir ak ci baatin maanaam ci gas suul ci jox la nga lekk ci man manee la ci sa alal loolu nag pour ñu man ko dañu lay tàqaleeg say mbokk ba pare doog laa man mane sëriñ Gana Messere Maxtaar lii ma waxaat ko ca kaw ñaata nit ñoo tàggoog seen i doom ñaata nit tàggoog seen i mag ñaata nit tàggoog seen i rak te jigéen dong ko waral adduna jëlul loolu aha loolu rafet rafet rafet fi ne yëgal ne jamono bii nga yëg sa taar bi am na ku ñuy doggali te moo la gënoon a rafet aha loo bari bari wu or xamal ne am na ko ña ngay tekki jaaroo ya loo bari bari mbasin am na ko ña ngi ko tarax laay mu bàyyi mu bàyyi armu wala mu duudu ko ti ji mukk aha di dëddu njabootam googee di jëm ci biir bammeel aha loo xalaat loolu dana jar ab taar du wéy fi ne boo seetloo maire yi nga gis nii koo ci seen mu ñaaw ba muy toll ci fukki atam ak juróom ñaar fukki atam mais ku rafet la woon taar du wéy salaasatu laysa laha iyaabu almaalu wal jamaalu wa shabaab ñett yii alal saxul taar saxul ak ndaw saxul boo tollee ci ndaw toll sa temps war a sëy demal sëy sëriñ Gana Messere Maxtaar toll ci sëy toll sa temps sangoog diw rek ku ne la sëy nga ne xale laa dafa teel toll ci sëy toll ci sa temps di sëy saa yoo xëyee taxaw ci seetu bi gis sa bopp yëg sa taar sama jëkkër ji jomm naa ko kii dépassé naa ko kii nangam déedéet jigéen day boole muñ damay wax ne toujours xoolal tey ñi war a gën a gore mooy jigéen ñi léegi la nga tëdd ci guddi di nelaw lal bu rafet macha allah néeg bi mel ni war a neew te ko ko liggéey mi ngi ci àll bi dang-dang ah loolu de dëgg la moom gaa ñi de dañuy dang-dangi ci àll bi ba sonn tabax kër lan cey tëdd du bari jënd lal lan cey tëdd du bari jënd saako ceeb duñ ca lekk ah lu dee ci kër gi yaa doo ci ñam ndeysaan lenn ci jigéen ñi nag di ko tiitaroo boo demoon extérieur da ngay yërëm gaañi léegi nag xoolal nag loo am loo am yaa ngi koy yéene indi sa bor indi sa soxna ab lal kenn du ko dàqal aha kenn du ko gënul nekk aha soxna si guddi gi mi ngi taal climatiseur bi télévision baa ngi takk aha lal bi fu ko neex ma ngay xalam te borom kër bi ma nga ca sedd ba ak di banku ci diggante yu xat di dang-dangi di daw ci tefes yeeg fu ne ñu lay dàq bu ñëwee nag doo ko may jàmm sëriñ Gana Messere Maxtar lenn ci moodu moodi yi lan la ñuy daj fi ne bari na muudu muudu boo xam ne nii maa ngi jéggul bu nee dang dang dang dang ba wàcc ñaar rek lay tal muy ñaar yan fay julli yi ak woofaati fay julli ak woo soxna si woofaati soxna si rek maanaam ñaar dong la tal fay julli yi waroon a julli ak woo soxna si balaa tëdd woo soxna si daal di tëdd soxna si kon amal ngor ci fexe ba xam ne adduna dara soxu fi day wéy dem ba di ko rëccu nag fekk rëccu wees sëriñ Gana Messere Maxtar jigéen su baaxee jigéen bu baaxee lépp baax mais sëñ Gana Messere leen lenn ci gaañi ñooy yàq seen soxna yi de mais topp soxna di ko kapp kappal ni pom rek ah lu mu wax nga ne ko gubb xuloo maire bi nga ne ko noo maire bi nii xut nekk téel sa bopp bu waxee sa bàyyi nga xas sa bàyyi bu waxee sa mag ku ñëw nga nangam boo ko defee da nga ko góor it day am na mu orienté woo xam ne mat na góor nag waaye nag yëggu-yëgg yi ci kër gi doo wax doo yëngu saqat bu baax sax ñemewuloo koo def waaye li ma la wax jigéen jëpp joo xam ne yaa ngi tiital sa borom kër doom joo amit ci tiit dong lay def jërëjëf sëñ Gana Messere Maxtaar lan ngay tëjee jataay bi maa ngi jéggulu nag ci ci wax ji xaj na ñàkkul na ñoo xam ne dinaa leen dana leen dana leen déranger mais nañu ma baal ak ndax it nag euh, dëgg rek mu fi nag ñeen ñi ñu bëgg lu baax ngeen wax dëgg yàlla ndax boo leen bëggoon leen mën ngeen a bañ a toog mënoon ngeen a bañ a ñëw maa ngi leen di gërëm ñun tam ñu ngi lay gërëm bu baax sëñ Gana lépp loo xam ne dégg ngeen ko ci wax mu nunu lu dëng nag ma jégg ndax kenn matut hmm? yàlla rek moo moo mat nit ne parfait seen jë est complet <laughs>